ñoo bari nga jumaa yi dañoo waroon taxaw ñu xool comme jumaa yi nuñ jege jumaa yi ñu sa am am jumaa yoo xam te ne dañ ko ak jàkk dañ ko war a éliminer def ko poste de santé mm-hmm. man sama xalaat laay wax mm-hmm. man sama ak sama gis-gis mm-hmm. mën naa bañ a convaincre keneen maa ngi koy ñaan yàlla dama ko wax sax suñu ko bu doon suñu jàkk jumaa bu may jiite sax lay tàmbale yàlla na tàmbale ci jumaa jooju parce que da ngay dégg moo tax da ngay dégg kii ne allahu akbar kii naa ba pare coow li coow li ne kur. te kenn du fees kenn du fees. kenn du fees duñu bokk ba pare ba pare xamoo xamoo di li ci nekk mooy paa yi ca nekk dem nañ ba seen amatuñu nelaw. 5 heures du matin paa yi léegi dem 4 heures et quart jot na. kuy waajal jégal waaj. 5 heures et quart yónni. pulaar wax ko wolof wax ko pulaar ba pare bu ñu paree teg alxuraan bi alxuraan bi di jolli loolu ban diine la. ñoog daayira yi ñoo yem. tapage bi daayira yëpp. te alxuraan foo ko teg ñëpp dañu war a déglu. dañu war a déglu ñoo ak yi ñoo yem. Mhm. daayira heure la am de. amul heure. non dafa bëgg a ne bruit bu ñuy def. daayira yi biir wi ñuy def ñoom ñoo yem. mais heure la am de daayira guddi la amul heure daayira daayira daayira ba muy daayira. tàkkusaan la imaam ak ma nangu. Mhm. daayira ba muy daayira. tàkkusaan la waaye daay daayira boo xamante ne balaa moo commencé 10 heures rang-rang juróom benn nit rang-rang boo xamante ne kenn mënta nelaw. luy rang tëgg ak pecc. daayira yi tëgg genn wala tëgg ak fecc la. xanaa sama daayira la man. non man xam man sama man damay wax li may wax man ragalu ma ko man dama xalaat sama li may wax. nit ñi gis nañ ko man ragalu ma ko. li ma wax dama la ne am nit ñi andi nañ tabala suñu koñ. taxaw di tëgg ma ne lii nag du diini waaye ba waa ji jékki-jékki ne càgg gi bu càgg ma ne ko waaw. lii de yàggul moom. bii moom diini bii moom yàggul. noo def càggin. mu ne mu ne mu ne càggin gi gi càgg ma ne ko. waaw waaw waaw man. noo def yow. man non man xam nga man. man ni ma def. man damaa toog ñaan yàlla yàlla ma yàlla jubal te jubal leen. bu desee dëgg rek neex yàlla. man aw ma lu parce que aw ma doole ñëw taxaw teegi dama la ne mm. tëgg. ñun dañoo waroon taxaw imaam yi ci boppam ñoom ñëpp ñu dindi benn décret. Ah. ak diine ji ne à partir de di vingt et une bu jotee mm-hmm. muy daayira yoo muy tiijaan muy murit muy laayeen kenn amul droit déranger nit. parce que loolu du diine nga yaakaar loolu di ah. waaw ñooy génne décret boobu. waaw ñun bu ñu waxtaanee ba juboo xalifa yi ñu dem présenté ko xalifa yi xalifa yi nga xamante ne ñoom la yàlla def ñu jiite réew mi te ñoom suñu waxee ak seen taalibe dinañ dégg bàjjël Mayel Thiam li may wax nii xëy na yow lu la arrangé ngay wax mais man li may wax nii dama xalaat ma xalaatu bopp laay wax c'est sérieux te man fi ma li may wax nii dama ne lii loolu nañ ko war a xool parce que dangay gis li may wax nii man koñ bi ma dëkk mën naa cee jox exemple juróom benn nit benn koñ la woo xamante ne bu fattee koñ bi kenn du jàll billaahi wallaahi Louis dama lay wax ne koñ bi yenn saa ñu fatt ko nga gis sa ko am feeb malade ku feebar boo boo leen ne da ngay jàll dañ leen ne jàlluñu ah li may wax sama télé laay waxee te dara jarul ma ma fii di fen koñ waaye laa ilaaha illallaah neex na laa neex na mais am na foo xamante ne laa ilaaha illallaah santuñu la ko wajaal naa noo ma comme subaatan laa la illallaah neex na nga gémmantu di laa ilaaha laa imaam santuñu la ko boo gëmantoo bay mbëkk ne laay laay la laa yàlla daf ne dama tëddi nelaw ba la way yow nga ne la ndax laay la laa du jeex. am na solo merci am nga question pour